wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin mbok juliti ñu ngi leen di ziar gannaaw bi ñu sante yalla subhanahu wa taala ci xewal gi nga xamanteni ni ñu ko ñu fekke weer wi nga xamanteni mom mo gën si weri, yi di julli di selmal ci ngeen jëmi def sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam am akien and ak yeen ci li nga xamanteni modi di waxtaan ci koor nga xamanteni lepp lo xamanteni shahru ramadan al mubarak bi nga xamanteni suñu borom subhanahu wa taala may nañ ñu fekk ko laaj na ko rek insha allahu taala danañ si indi ay waxtaan indiñ ci ay leral waaye faram faccel leen ci lepp lo xamanteni rek japp nañu ne war nañ ko war mëna leral ngir mëna wor wor go xamanteni gu mucc ayib la wor wor go xamanteni suñu borom subhanahu wa taala def ci bekk wor kor go xamanteni yalla subhanahu wa taala buñu ci génné rek dañ si am ak li nga xamanteni mom modi ngeureumam di xam ngeen ne wi ñu di wëru koor Euh, dafa nekk weer woo xamante ni li yàlla waxoon si al alquran rek moom mooy weer wi nga xamante ni moom moo gën si weer yëpp lu tax ñu wax loolu li si nekk si ay yiw lu tax loolu ñu wax loolu li si nekk si ay ngëneel lu tax ñu wax loolu li nga xamante ni nekk na si si li nga xam ne di ay tuyaaba te jullit saa su yeewoo rek su nekk lii ko gën a yit war a gën a yitteel mooy mu fexe ay yiwam yokk fexe ay tuyaabam yokku waaye itam fexe li nga xamante ni moom moo di ay ngëneelam yokku rawatina si weer wi nga xamante ni moom moo di weeru koor ñu gën ko xam ci shahru ramadan al mubarak nga xam ne dafa nekk farata si képp koo xamante ni da ngay wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna sayidana muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam bi maana képp koo xamante ni gëm nga yàlla gëm sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba jël carte membre bu l'islam rek yow koor war na la jamono ba nga xamante ni majeur nga bu ñu ne majeur nag mooy muskallaf muskallaf mooy kan bu dee ku góor mooy ki nga xamante ni dem na ba gént kooku koor day daal dee nekk farata si moom bu dee jigéen bu demee ba commencé gis li nga xamante ni moom moo di mbaax koor day daal dee nekk farata si ki nga xamante ni moom moo di soxna soosule kon koor day daal dee nekk farata boo xamante ni bu ñuy teg la jullit bu góor bi waaye itam ak jullit bu jigéen bi sa kanam a kanam sa waxtaanee ñëw incha allah danañ si faram fàcce ñan la lislaam di teggil li nga xamante ni moom moo di koor moo xam góor la moo xam jigéen la ñi nga xam ne dañuy am ay gàllankoor ak yi nga xamante ni day aju si loolu le waaye tey li ñu fas yéene waxtaane rek mooy naka la ñuy waajale li nga xamante ni moom moo di weeru koor waajal ko nag jullit bu nekk war na ko mën a bàyyi xel ndax la ñuy wax rek képp koo xamante ni da ngay tukki li nga xamante ni war na la mooy nga fexe am li nga xamante ni moom moo di yóbbal tukki bi ñuy def nag moom moo di tukki koor te dafa am yóbbal boo xamante nii moom la moom la laaj mooy la yàlla waxoon si alquran rek ba muy wax aaya bi nga xamante nii si la farataal si ñun li nga xamante ni moom moo di weeru koor boo demee si suratul baqara yàlla subhanahu wa taala mu ngi koy wax baada audu billahi min alsheytan irrajim bismillahi arrahmani irrahim yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun sadaqa allahu alazim yàlla nee na yéen ñi nga xamante ni da ngeen bokk si daairatul iman ñi gëm yàlla gëm sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla nee na yéen ñooñu le farataal naa si yéen li nga xamante ni moom moo di koor comme ni ma ko farataale woon si xeet yi nga xamante ni ñoom ñoo leen fi jiitu woon te koor googu benn hadaf maanaam benn objectif ak benn mucc rek laa bëgg ngeen jële ko si moom mooy li nga xamante ni moom moo di ragal yàlla moo tax mu ne laallakum tattaqun maanaam bu ngeen wooree ni ko yàlla bëggee ak ni ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee yàlla nee na bu ngeen si jógee rek dingeen ngeen am li nga xamante ne moom moo di ragal yàlla gu mat sëkk nga xam ne ragal yàlla googu moom la ñuy wut si bépp xeetu jaamu yàlla boo xamante ni suñu borom subhaanahu wa taala farataal naka si ñun ñi nga xamante ni dañu bokk si njabootu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yobbal bi nag nekkul loo xamante ni lu diis la nekkul loo xamante ni lu jafe la nekkul loo xamante ni itam daf ñuy teg li nga xamanteni ni wala daf ñuy indil li nga xamanteni ni moom moo di ay gàllankoor déedéet waaye yóbbal bii ñu war a am ngir préparer tukki bi ñuy def si biir weeru koor suñu borom subhanahu wa taala faram fàcceel nañu ko mooy lan képp koo xamanteni ni jullit nga koor fekk la fi nga war ko mën a rek jàppal ne am na yoo xamante ni moom nga war a tàggate sa bopp am na yoo xamante moom nga war a tàggate sa bakkan waaye itam am na loo xamante ni moom nga war a tàggate li nga xamante ni moom sa ruux lutax ñu wax lolu ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne bu wéru koor gi ñëwé cheytaane yépp dañu leen di jëng manam dañu leen di yew lepp lo xamanteni ni la won di jax-jaxal doomu aadama yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena dañ koy yew xana kon moy lolu lu fi way def rek sa bakkan nga ko tej nak bakkan bobu dafa am no xamanteni non lañuy la ak mom ngir mëna a li nga xamanteni mom modi wéru di koor bi bi ci jitu moy lepp lo xamanteni jëf la lepp lo xamanteni wax la lépp loo xamante ni jëfalante la sa diggante ak nit te rafetul boo bëggee woor weeru koor bu sell bu baax bu yàlla subhaanahu wa taala nangu gërëm ko ba pare sopp ko jëlal yooyu yëpp nga xam ne naka su dul noonu la nga teg ko fële bokk na si bul fen bokk na si bul jëw bokk na si bul dem foo warta dem bokk na si bul wax loo warta wax jël loo moomul moom waxaalew ñu ko lekk bëccëg moom waxaalew ñu ko naan bëccëg moom waxaalewuñu ko kon yooyu yépp ak yi nga xamante ni dafa aju si li nga xamante ni moom moo di bànneexu bakkan ak bànneexu doomu aadama bëccëgu weeru koor ba ker balaa jant bi di so da nga koy moytandiku moo tax ñu ne assawm moom mooy lan koor mooy al imsaaku anil akli wa shurbi min tuluu shamsi ila gurubiha maanaam moytandiku fegu bàyyi lépp loo xamante ni lekk la lépp loo xamante ni naan la lépp loo xamante ni dafa jëm ci wàllum sëy ba jant bi fenkee ba kër balaa muy so jant bu fenk nag doo xaar ba jant bi jóg nga door a bàyyi lekk gi déedéet waaye balaa ñu ñëw si loolu bu ñu waxee ne weer wi feeñ na rek li ñu njëkk wara war a def mooy ñun suñu biir ku si nekk ka nga dëkkal ka mbokk ka nga bokkal koñ ka nga bokkal liggéeyukaay sa nawle sa ñëpp ku si nekk nga baalunte ak moom àq ndax àq dafa sew te kenn xamul àq boo xamante ni amal nga ko sa moroom wala sa moroom amel na la ko bu ñu baalantee àq ba pare nag ñu daal dee yéene yéene bi nag soxlaawul di wax sa kaw naan fas yéene naa woor weeru koor gi déedéet wala fas yéene naa woor ëllëg sa kaw déedéet fas ko soxal rek nga wax ne fas yéene naa oor weeru koor gi yépp ba mu jeex yéene bi daal dee dugg nga xam ne du la warati chaque jour saa yoo yeewoo rek na fas yéene naa woor tey déedéet ndax loolu mën nga xëy fàtte donc boo nee rek fës yéene naa woor weeru koor gi yépp te yàlla rek tax doy na jamono ba nga xamante ni annoncé nañ la xibaar la ne weeru koor gi feeñ na maanaam bu ñu xëyee dañuy woor tàmbali na boobu rek ngay dee day dugal li nga xamante ni moom moo di se yéene lu tax yéene bi jiitu ndax Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko jàngal ne innama al amalu binniyaati wa innama li kulli mriin ma nawa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee ne jëf yépp mu ngi lallu si li nga xamante ni moom moo di yéene te doomu aadama bi lépp loo xamante ni yéene na ko rek moom lay am moo tax suñuy jëf dañ koy tàmbalee li nga xamante ni moom moo di yéene rawatina weeru koor bi nga xamante ni fa tabarakallahu ma sha allah yàlla dogal na ñu fekke ko ñun jabootu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu yàlla dogalee ba ñu yéene nag ñu xam ne chahru ramadan bi ñuy waxtaane dafa am juróom-ñetti xaraf maanaam 8 lettres yoo xamante ni ñoom ñoo ko composé muy chiin muy ha muy ra ak beneen ra ak miim ak dodd ak alif ak nun lettre bu si nekk rek am na benn signification bu ama am solo maanaam benn tekk boo xamante ni bu am solo la maanaam benn bi rek buñ ko jëloon di ko dundee si njëlbeenu weer wi ba ci euh, mujjantal ga day nekk loo xamante ni lu am solo la bi si juutu wax naa la ko mooy Chine boo jëlee Chine daf lay delloowaat si baatu shukru muy sant ak ngërëm lu tax sant ak ngërëm war la sa digganteeg sa borom subhanahu wa taala ndax li gën a jafe yàlla daf la ko defal yow xañ ko ñu bëri te amaana ñoo la gënoon ragal yàlla ñoo la dàqoon jaamu yàlla ñoo la gënoon gëm yàlla loolu mooy lan mooy fekkee ndax am na ñu fekke woon kooru daaw fekkewuñu ko yàlla dogal na fekk ko fekke ko loolu war nga si sant yàlla am na ñoo xam ne fekke woon nañ ko daaw fekkee ko ren yàlla teg na leen jàngoro boo xamante ni duñ mën a wàccoo ak farata boo nga xamante ni moom moo du weeru koor yàlla teggil la jàngoro yooyu teg leen ko ñoom kon loolu war na tax nga sant yàlla am na ñoo xamante ni heure bii daaw koor fekk na leen fi ñu wér am lépp mënoon woor te amoon itam lu ñuy doge ak lu ñuy xëdd ba doon ko joxe sax tey suñu borom subhanahu wa taala xañ leen ko jox la ko loolu itam war na mën a tax nga sant borom bi subhanahu wa taala beneen bi mooy bu la yàlla tàggatalee weer wi yombalal la ko ba mu tegu sa loxo tegu sa kanam nga am loo xëddee am loo ndogoo ba di ko mayee loolu war na mën a tax nga sant borom bi subhaanahu wa taala si xéewal gi nga xamante nii defal na la ko ndax xéewal yi ñu yàlla defal yépp boo demee si alquran suratu ibrahima alayhi salaam yàlla mu ngi ko fay wax naan wa in tauddu niamatallahi laa tuxsuha yàlla nee na bu ngeen doon wàññi di xëy di wàññe xéewal yi nga xamante ni defal naa leen ko yàlla nee ne di ngeen wàññe ba tas waaye du yàgg yàgg yàgg ba ngeen mën a peeg li ma leen defal si li nga xamante ni moom moo di ay xéewal la kon xéewal yooyu ñu borom bi subhanahu wa taala defal nga xam ne benn weeru koor boo fekkee rek ba woor ko ba mu jeex si tàmbali ba ba si eh, cëppaandaw la loolu li si nekk si yiw bu la ko yàlla fayee àdduna ak àllaaxira sa lëpp daal dee baax yàlla ndek si kàntanam yàlla si mbaaxam yàlla si xarañam may la ngay fekkee ay koor yu bëree bëree bëree bëri tegu la benn gàllankoor tegul la ñàkk tegul la ñàkk man yooyu yépp suñu borom subhanahu wa taala teggil la ko kon ñu ne jaadu na nga sant yàlla subhanahu wa si xéwal ji nga xamante ni defal na la ko beneen bi mooy yaakaar bi ñuy am ne yàlla subhanahu wa taala daf koy nangu ndax yàlla subhanahu wa mu wax si alquran ne moom du tas yaakaaru jaam bi yàlla nee ne sama jaam bu ma yaakaaree ba daw wut ma rek lépp loo xamante ni yaakaar naa ko si man si lu baax rek dinaa ko ko defal moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne boo ngeen di jaamu yàlla am leen yaqin ne yàlla subhanahu wa taala daf koy nangu kon loolu itam jaadu na ñu sant si yàlla subhanahu wa taala ndax jullit du dute si benn bonne action maanaam lépp loo def mu rafet mu baax muy lu lu defu rek yow jappal na suñu borom subhanahu wa taala dala koy nangul da bu la ko nangalee la ci bindal ay yiw te yiw yooyu fi lay commencer di la ko fay fi ci aduna di la may guddu fan di la may wer du yok say xewal du yok say sutura du yok say teranga bu Allah ñewé nak yalla na yeex mu dal day nek lo xamanteni fa fa ma sha allah day gëna a sakkan day gëna yiw day gëna bax kon lolu moy première numéro bi nga xamante ni moom lañ leen andiloon si baatu Chine rek lañu tàmbalee ñu si ha ra beneen ra bi miim bad alif nuun yooyu yëpp incha allah benn araf bu si nekk danañ ko faram fàcc ngir ñu gën a mën xam ne weeru koor du caaxaan weeru sellal la weeru yiw la weeru jaamu borom bi subhanahu wa taala waaye itam weeru toroxli la kon fa tabarakallahu macha allah loolu lañ leen doon baaloo àq si njëlbeenu koor gi leen jox dig daje incha allah salaamualeykum ورحمة الله تعالى وبركاته